mooy fan yii yëpp ñu ngi wax lu jëm ci hôpital de Dantec Sénégal dafa bindoo noo xam ne bu dara xewee rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ji mu bëggee nga wax donte nekkuñu woon fii sax ñu ngi doon suivre la xew yëpp ci hôpital ba li ma ciy wax mooy bu njëkk bi dégg nañu version yu bëree bëri bëri ci mbir mi dégg nañ ni gàllankoor yu bari dina dina am ci tëj googu nga xam ne tëj nañ ko ci hôpital bi te waajaluñu ko waajaluñu ñu fay liggéey waaye waajaluñu it ñu fay fajoo loolu moom dafa bokk ci amateurisme ak cuune ak tiit ndax dañoo am ay gouvernants yoo xam ne bu ñu leen nee ay milliards a ngi nii rek dañuy tiit wax nañu. ci gàllankoor yi muy indi ci ñi nga ñi nga xam ne dañ fa def formation ci médecin yi wax nañu ci li nga xam ne ay patient la yoo xam ne fa lañ doon fajoo xëy-xëy ñu leen mënatoo fi fajoo te waajaluñu leen fa lañu mën a demee faju ji bokk na ci argument bi gouvernement doon wax sax dégg naa ñu naan li ëpp ci ñuy fajoo Dantec du waa département Dakar moo waxtaan ak ay médecin ñu ne ma am na étude bu ñu def boo ne ni 60 pour cent ñiy fajoo danteek waa département de Dakar la kon wax jooju taxawul wax nañu wax nañu wax nañu débat technique bi nag man du ma médecin docteur Diallo Diop a ngi nii moo ma gën a xam yu mel noonu te nañ ci dellusi bu ñu paree dajale li ñuy dajale yépp waaye damay wax ci li nga xam ne moo jëm ci droit ci état ak ci administration gis ngeen Sénégal li may ñaan Sénégalais yi def ma leçon de morale à personne waaye li may ñaan Sénégalais yi mooy ñun ñëpp nañuy góor góorgóorlu di jàng xeex lu suñu yoon newul su ma nee lu suñu yoon newul nag mooy loo xam ne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëree bëri bëri ci Sénégalais yi balaa ñuy mën a yëngu rek mooy la ñuy def ci loraange dal na seen kaw mais tant que dalul seen kaw les mêmes ñooy nekk di yuuxu di xeex ñoom Guy Marius Sagna ñoom Ousmane Sonko ñoom mais dafa mel ni li ci bëri du yëngal Sénégalais su ngeen gisee ma wax loolu nag mooy gis ngeen euh, anam yu mel nii dafa yàgg am fii moo tax man bi may nekk député à l'Assemblée nationale dinaa leen liiral benn bataaxal boo xam ne dama ko bindoon tontuwuñ ma ba léegi nag ndax lii ma leen di wan nii yépp ay question écrite yu ma bindoon la may nekk député yenn yi tontu nañ ma ci yenn yi tontooguñ ma ci te fan yi di ñëw dinaa commencé def ay live di delloo askan wi li nekk ci lii lii mu ngi ci pétrole bi lële mi ngi ci phosphate Matam bi leneen ngi ci barrage Affiniam bi lii mi ngi ci usine de fabrique de po de farine de poisson yi amul secteur bu ñu bàyyi woon lii lépp ay question écrite la ba ci caaroy 44 amul lu ñu bàyyi loolu moo ne woon suñu taxawaayu député wala bokk na ci ndax li bëri nit ñi cinq minutes de temps d'antenne bi ñu daan am lañ doon gis bii bi ma ko bindee dama interpellé gouvernement bi ne ko ah ñun de gis nañ ni am na ay suuf yoo xam ne état bi moo ko moom suuf yooyu amoon ay bâtiment yu ci nekk ngeen xëy xëy jaay ko bokk na ci site bi nga xam ne moom fa la gare routière pompier newoon titre foncier dix mille soixante neuf DK ak dix mille trois cent soixante seize ngeen xëy xëy daal koy jaay benn société marocaine bu tudd Adowa. ba léegi foofu la mbir yi ne furus ngeen jëlaat ay kër yoo xam ne état du Sénégal moo ko moom Sicap tabax ko gannaaw assemblée nationale ngeen jël ko jaay ko ay politiciens ci ay prix yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ngeen jëlaat fu ñuy wax terme sud daaw daaw jéeg gis ngeen bi ñuy xeex fi ñu jël ay père de famille ci biir nawet bi génne leen sànni leen ci biti Barthélemy Diaz moo leen mujj héberger fii ci benn école bu nekk Mermoz defoon nañ fay conférence de presse ànd ak ñoom xeex-xeex bi ma interpellé ci gouvernement bi TF 804 et 44 17 DG bi nga xam ne coopérative d'habitat comico la ñu waxoon mujj gi ñu ne dañ koy jox ay privé yii yëpp am na fi waaye yemul ci loolu ñu jëlaat ay immeuble daat koy dem jox ay bo ay baux emphytéotiques mooy loué ko ay nit pour quatre-vingt-dix-neuf ans te loi dafa ne ab immeuble bu état moom munoo ko loué lu soo koy loué nit délai yi c'est entre dix-huit ans mooy fukki fan fukki at ak juróom ñett ba quatre-vingt-dix-neuf ans ci délai boobu nga ko mën a lu ba ba cinquante ans du moins muy juróom fukki at mais mënoo loué nit quatre-vingt-dix-neuf ans loolu la la loi da koo tere Sénégal ñoom ñu dem jël ay nit dinaa leen citer immeuble yi te pourtant lii lépp biir ville la wetu hôpital Le Dantec li tax bu dante gën a garaaw mooy impact bi mu am ci paj meeg ñoom seen mais yëpp am na ci yoo xam ne dafa am impact social boo ci boolee nag impact bi mu am ci patrimoine état bi ñu jël di ko sa sa saax saaxee boo jëlee titre foncier 2863 cas mooy immeuble Brière de listre defe naa ñëpp xam nañ ko fi ñu jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégindia Sénégindia pour 99 ans nga jël titre foncier 26 83 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga jël titre foncier 54 21 mi ngi rue Clébert nga jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 49 82 jël ko moom tam mi ngi. rue Hachimou Tall angle René Ndiaye nga jox ko société bi ñuy wax Fleur Sassou enfin immeuble li nga xam ne moom fa la direction de l'élevage nekkoon également yooyu yëpp Macky Sall ak nguuram jël nañ ko tey la ko jox ko ay nit question écrite baa ngi nii maa ngi ko bind 2020 nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxtaan nañ waxoon nañ ci waxaat ci publiquement te loi li mu wax te foofu moom mu am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waaye xam naa ni tëj hôpital moom te waajaloo ko am na ko proverbe bu naan boo tëjee hôpital ubbi nga ay bàmmeel tëj hôpital te waajaloo ko mooy ubbi nga ay bàmmeel à côté waaye li am solo mooy code du domaine de l'État bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi moom bu dee am na ay tabax yu ci nekk état bi mënu ko jaay lu dul assemblée nationale moo voté loi déglu leen ma bu baax même su dee mur de clôture rek moo ci ne état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale assemblée nationale voté une loi buy naan autorisé nañu ñu jaay immeuble bi lu ko lu ko mooy rek mënuñu koo jaay. moo tax ñiy joxe te waruñoo joxe ja eh, respecté wuñu yoon dinañ ko layoo ak askanu Sénégal devant la justice waaye ñiy jënd ci anam boo xam ne respecté wu yoon nañu xam ni ñu ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xool déjà lan lañu mun a def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juriste yi dinañ ci liggéey waaye gën saa gudd 2024 ku ñu fi joxoon lu askan bi moom te jaarul fi mu war a jaar boo fa tabaxoon gratte-ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax ku ñu fi jox ci ay njuuj njaaj loo xam ne jaarul fi mu war a jaar te askanu Sénégal moom ko ak loo fa munti investir bu ñu jëlee réew mi dinañ ko delloo si ci ci askanu Sénégal parce que tappale gi dafa war a jeex ci loolu laa bëggoon daanelee di gërëm ñëpp ci déglu bi di leen sant dinañu tënk